Ah, original neexal bu te am na original pur jus de fruits Sénégal ka fay kan gi yegsi fay say facture a gaaw ngir ñoŋal seen dundin bés bu ne Eric Favre Nation ubbi na ay buntam fii ci Sénégal ak ay large gamme de produits yu wër àdduna wërngal këpp ñu saytu ko ci laboratoire français yi gën a mag moo xam da nga bëgg a yokk sa masse wala dindi sa graisse mbaa sax nga bëgg a yokk sa cawarte yokk sa ngóora ci sa néegu sëy daw leen gaaw consulter suñu site www point Eric Favre tiret nation point wala nga woote ci suñu numéro commercial bi 78 689 ñoo ngi fii ci Dakar Olympique Club ci yoonu Corniche Ouest bi mais sama grand daf maa nëbboon ba fa moom mhm. it le grand grand koñ mais xam nga dañuy va et vient ça va ça rek nit ki bo xamul rek da nga daan waaw ñu ngi koy félicité ci jaar jaaree yëpp. di mm-hmm. ñaan état bi tamit mu teg leen loxo. Mm-hmm. xaw ma Jomaay la xaw ma. Sonko gëstu leen xaw ma waa Zédi Dam. Mm-hmm. gëstu leen gars bu baax. bu baax ah, man du affaire de ay jàppale man dama ne fii ku fi dem rek yàlla la. parce que man moom dama sukkandiwul ci poche doomu aadama kese man foo ma fekk damay xëy liggéey. damay liggéey ci nii damay ci liggéey ci ne tey bu sécurité bi doxul mhm. maa ngi liggéey ci yeneen i projet pour bañ rek tàllal nit loxo mhm. man man man côté boobu laay demee bu combat ñëwee dama naan acca bu ñëwut ma liggéey mhm. parce que boo ne boo xalaatee da ngaa yor yaay yor baay yor ay rakk rek waroo courage la bara man dama bañ mbër mu nga xam ne da nekk ci koñ bi di xaar ñi liggéey wàcc ñëw di la jox par cinq cent pour nga jëndi cere kërëb kërëb man loolu laay bañ. Mhm. man à chaque instant moo tax damay xëy liggéey loolu moo tax. loolu moo tax. Mhm. Mhm. li li xaw a sooxe sa carrière lan la. waaw lu xaw a sooxe xëy na suñu borom moo moo moo na nammee nii rek. parce que dañ la daan gis si mbapat yi. waaw boo amee combat vite la daan nekk bien fait mais gisatuñ la mbapat. Mm. daanaka mën na ne ay défaite nga tegle loolu ñu mën a wax si loolu aussi. waaw benn défaite la rek parce que mm. boo xoolee ci victoire laa jógee. Mm. ba ma génnee ci combat génn naa ci àll bi di dem di finaalu. mais damaa jékki-jékki gaañu woon ci tànk mu xool su ma sukkee day métti. ma arrêté loolu après nag ci la jékki-jékki Basirou Ka woo ma. Mhm. ah puisque mooy dem di xëy foofu va et vient va et vient. Mhm. mais ku ma jox combat ma ma arrêté liggéey bi dem gérer sama combat. Mhm. waaw. mais léegi bi ngay jël Talfa yow xamoon na Talfa. non suivre ma ko parce que ba may jël Talfa boo xoolee maa ngi woon samay entraînement mais damaa jig pare naa. Mhm. mais heure bu ma demee ba ñu ne combat bi des na suba la. mu yàqu. Mhm. juste sama nijaay moom ne indi benn conteneur. Mhm. ma nekk ci conteneur bi. conteneur bi en empêché ma jékki-jékki ñu commencé di liggéey liggéey ba saa bi gars yi ma combat bi yàqu na gars yi na bi déwén la jëmaat ma dellu ci jaay bagage yi. nekk ci nekk ci semaine xaw ma ñu ne ma àjj nañ ko. te boobu man maa ngi ñëw tëdd sama bundu gàlle gars dama aji nañ ko man leen ni aji nañ ko ci la ma jiili woo ne ma président CNG nee na combat bi il faut ñu bëri kër bo man or que xam naa ne président bi woowu ko mais dama ne naa ci génne mu jeex seetale na waaw naa ci génne mu jeex parce que def naa ci li ma amoon lépp hmm. kenn ñëwul ne ma am lii boo xoolee ay ñoom boole ñoo ñëw yëkkati seen i xéwal hmm. ay ñoom xaadim xaadim ki doomu père kii bilaal bi nekk sama koñ. waaw waaw séeréer kii yaa ma gën a xam. bu baax. mais damay gis nga kii classe jiili yow jiili waat sànn ba paax. Hmm. dañuy déggante parce que nga na xam naa ne woowu président Bira seen sax woowu ko. jiili keroog rek maa ngi déggante mu whatsapp. Hmm. jiili bokk nañ ci ñi ma yar ñi ma ngénte. Hmm. ba ma toll ni mu war a toll. kon moo tax ma am sañ-sañ. moo tax nga yab ko daal ma ko yab. Mm-hmm. tey man bu ma dekkoone woon mm. bu ma dekkoone woon moo tax daf may jën ànd ak man ak moom ak jil yóbbu ba sama kër sëriñ mm-hmm. Cheikh Modou mm-hmm. invité leen añ buñ toogee bëgg nettali ma waxu leen mais seex bi day xam ne sax lii moo leen indi ci fii dëgg la mais danaa ne ah comme Mbaye sama taalibe la jàppale leen ko rek waaw di ko nuyuwaal passage Cheikh Modou Gueye moom léegi ci biir combat bi yokk Talfa lan moo la ñàkkaloo ci biir combat da ko xeeboon parce que wala li nga maye moo bari ci biir combat bi la moo xew ba ci biir combat bi jël boobu am. xam nga komba tey jii nii yow doo gan ci làmb. Mhm. tey jii nii làmb am na lu nekk ci ci biir ci biir terrain boo la yàgg naa ci ci terrain bi. Mhm. su amee nu mu demee ci biir terrain bi rek sant yàlla. waaw sant yàlla rek. Mhm. sant yàlla waaw léegi fi mu toll nii euh, lu tax ren gisuñu nga bëri. waaw ñu ma combat bi ñu ma war a jox rek. danga nga doon taamu wala ñu la jox moo gën moo la gën loolu wala. musuma taamu man maa ngi dégg am mbër yi caas ci télé bi nañ ma jox mbaytin hmm. mais dama ne man xaalis boobu teguwul sama kanam mais buñ ma ne mbay. Hmm. yaa diw la nañ la. damay bëre man musuma bañ mbër. jamono ji ko bëgg a bëre. non man kay taamu ma kenn. mais am na ay temps ngay temps parce que am na temps ma la fi doon tooñ di la proposer naan la est doo jël sambala affaire yooyu noonu man kay gis naa xam na euh, man hmm. jour ba ngay wax hmm. xam nga da ngaa ñëw ñëkk ñëw fekk ma ci porte bi waaw di la tooñ dévancé la waaw ma ñëw toog sa ginnaaw hmm. mu ngi lay jéem a wax mais gisoo ko mu ñànk naa nii mbayti na ngi fee di rëy làmmin doo ko jël kër kër ma ne la ne maa ngi nii waaw nga ne ma non ma ne la maa ngi nii Boucar nag yaa ngi wax Zambala yow kii Zambala du ko gaañ tamit kii yor sa commune bi xam nga maanaam ñii ndeysaan souvent ñëwantal bi ngay am si ñoom non non mais boo amee ñëwantal nag doo ko boole dugal nag si Zambala mais kii ak Zambala kii waay ah, kii kii kenn doo ko ah, kii mu dëkkee waa ngeen ngeen ko dugal ngeen ko dugal si Zambala nag mais mais jamono jooju dafa mel ni moom moo bëggutoon daa mel ni yow yaa bëgguloon jamono jooju wax parce que man damay damay damay damay kii ah. maa ngi bëre hmm. gars yi jëluñu ko. léegi du ma jékki-jékki di tourner waat di jëli Zambala. Mhm. parce que làmb mënoo dajale da ngay jël ñu métti jël ñu métti jël ñu métti ba kañ. Ah. Mhm. tey jii man boo xoolee man fi ma jaar Zambala jaarul foofu. man damay jël tey combat bu yàqu bu yàquwul ma jël. Mhm. tey jii man boo ma bu ma neexoon du ma jël Talfa. waaw daa yàqu mooy sauver bis bi. sa jaar jaar sax bokkul ak tal ba ñu bañ a wax Cheikh Super Jamono parce que moom moo ko jëloon hmm. mu dem ma jël ko yàlla nag dogal na li muy dogal léegi Zambala sa diggante ak Zambala sama diggante ak Zambala waxuma si dara parce que kenn seet suuma waxuma waxuñu mais bëgg nga sa bëgg nga bëgg nga mosuma bañ benn mbër ñeme nga su ma naree ragal ma bàyyi bëre <laughs> ah de la poser question rek. ndax gis nga. da lay laaj rek parce que loolu tamit seere na ni. Ah. amul mbër bu may ragal waxuma laa doomu aadama. Hmm. amul doomu aadama bu may ragal. mais Zambala keroog gis nga li mu def Blende. Blende maa ko njëkk a daal. ba mu jàpp fii ñoom ñoom man di labe labe di ma laaj ci télé beeg rajo yeeg yooyu. Ah. dama ko fekk fii adressé bii jàpp ko daan ko. waaw ah. président Pate woo ma téléphone xam nga ki nga daan ma ne ko kan te boobu entraîné ma maa ngi nekk IPRES. Mhm. nekk sama yaay foofu mu entraîné. Mhm. nekk foofu xaw ma ñaata kii. ma jég ma ne ah fii mooy loolu. ci laa mhm. jege ñëw di renouveler sama licence desit fee kii Pakala. waaw Pakala ma mais Mbaye del wàcc si ci yi ma ah moom laa bëgg far yàlla ma ñëw ñu daje final foofu. moom mu éliminé mais kon xam nga man maa ngi def. li la war. mais bu ma ñëw rek. xëy na am na yu ma téye. Mm-hmm. mais bu ñu la proposé woon Zambala moom. téye par temps ku dul Zambala damay bëre. ku dul Zambala damay bëre. Bougar après Zambala kan nga gis. waaw comme ku ne. ku ne ah. xam nga maanaam lamba su ma juumul jour boobu sax dama mu waaye kañ la am combat ko noonu sa ngeen di selal la ko ne ko booyee ma nga mm. nii ma ko mais du ngeen bëri lan la yéen a mën a mayante xaalis mm-hmm. mais souvent maanaam bëri dañuy gis maanaam ñu war a bër ku nekk peut-être di jéem a tekki sa morom di jéem a moytu ba souvent. am lu la arrivé loo xamante ni du la gënal. te yaakaar naa ne loolu dal na ko. parce que yaakaar naa jël par pour man tey kii bëriwul ak Zambala Zambala daan ko sax moo gënoon Talfa daan ko par rapport moom fi tolloon ci carrière am mhm. kon yaakaar na nga bëri mbër bu mag mu daan la souvent mooy gën booy bu nekk si si si ascension di yéeg mhm. fekk la ci yoon bi daan la souvent da lay yàq lu bëree bëri mhm. mais kii ku xam xam ne champion la champion la ku nangoo bëree la nangoo nangoo woon dem ci àll bi man daal sa waay xaw ma ndax dafa ker xaw ma ndax sa waay man ma lu xew ba mbay daal mbay mi Forza war na waaye Forza kay moom sax dafa war a ñëw parce que moo xoolee moom. li muy def rek laay def. ki ko daan moo ma daan. daf ma war a jël waaw Franc moo leen boole. Franc waaw daf ma war a jël. waaw sa combat baa ngoog. waaw. ndeysaan ñu bàyyi mu seetaan ko. Mhm. yow Forza lan nga ne neex. combat bi nii xanaa moo euh, daan na ma mais xoolal. Mhm. Euh, est-ce que mos naa kaa seetaan sax. mosoo man leen ni combat bi sax tallu ma parce que nag c'est vrai aussi parce que man am na benn jamono ñu am ville. Mhm. vraiment mu nekkoon aussi si conditions yu parce que boobu yaa mu ngi feebaroon foofu entré ah. fa. Mhm. vraiment mu nekkoon ay conditions yu métti. ñu sama yaa daa feebaral dul taxaw ci télé bi naan leen nii wala la. dama koy gérer. souvent nag day métti mooy xam nga Sénégal fii nga yor fi malade mu entré rek rek nga nekk dafa nekk. mais pourquoi bëggatoo seetaan image yi. ah lu tax non parce que boo xoolee am sama tànk bi. Ah. jour bañ may proposé combat bi. waaw. Ah. xam nga su ma waxee turam moom day mer daf ma si topp dafa gis nga dama ne tàkk ne waaw rek gis nga ba ma contacté kii caatu waalo. waaw dañoo jàppante sama tànk bi ne tëll. Mm-hmm. koy sooxaale di ko sooxaale. Mm-hmm. ba ba ba yàlla dogal combat bi jeex. barki Sëñ Tuubaa Mbàkke. Mm-hmm. moo tax ci ci tànk boobu ci la tëdd. waaw. combat baa nga wopp mu ngi nii gis nga sama tànk bii ban la si gauche wala droite gauche bi wala tànk boobu gauche bi bii ma takk bii ma takk nii hmm. moom laay mbotee gars yi uh-huh. boobu tel kii ñëw naa seen tournoi hmm. ba paa bi moom min am na ndem si yàlla si booy bambara moo mànga ba ñuy bëri sax daara jolo foofu noonu di foo ku nekk naa maa la mën nangam sax tournant mhm. ba maa ko jël léegi ak arbitre baa ngi ni sifflé na nga seetaan ko te la première fois nga seetaanaat ko allez y doxalal ñu dem waaw fii nii xam nga rek dañoo dox mu attaqué ma mhm. xam nga kuñ dee jël sànni na ko waaw moom tànk rek lay wër allez fii nit mosuma fa egg te daanuma la. parce que boobu du bàyyi de. Uh-huh. bëgg naa daw jàpp ko mais damaa jékki-jékki gis nga. ba mu hmm. bëgg jàpp. waaw ma laal kii wut mën sama loxo yi mënul jàpp. Uh-huh. moo tax mu dóor ma épicure fu may jéewi kii mu daw suruxaat. la la uh-huh. la nañ nag. bëri nañ bëri bu neex. waaw. non Talfa bàyyiwu la benn yoon nga mm. xalaat. gis nga pop pop mm. bi tàng bi ko jël mu mbot la mais xaw ma lu tax fii. non parce que booy bi aussi da am. parce que moom moo dal sa Thiès. waaw euh, ah, ah. ragal mbot bi foofu. Mhm. liñ man wax naa la ci biir interview nee naa liñ ma sëf ci combat bi. Mm. <laughs> combat mystique maa quoi. naa jàpp de. naka booy géeyaay bu ñuy bëri ay jàmbaar lañu quoi. bilaay li ñuy teg jàppee mystique. naa jàpp ci mystique de xam nga tey jii nii doomu aadama bu waxee. waaw mais loolu passé na nag. non wax naa xam nga keroog maa def live sama whatsapp. Mhm. bëri kii na ma ni booy talfaay dugg ne ma ni waa mbay man leen euh, maa ngi leen di félicité de. Mhm. mais yéen a tax ma découragé parce que li ngeen ma def la. Mhm. parce que tey dañ ka fay fay ma. mais nee naa leen saw man ñi may yor. heure bu ma jàppee wóor na leen ne du ma bëri. parce que man moom buñ ma jàppoon man mooy leer na maa ngi gan gi. day leer barki sëñ Tuubaa Mbàkke man xam man ay combat ay weer sax man bëgguma ko man damay bëgg sama combat ay di jours. franc ngi ni di kontaan di jubilé. ah kii di mbaam xuux. waaw bàyyi loolu yow tamit. mbaam xuux la. ah foo ko teg xoolal xoolal ñoom góor a soog ñu ngi jubilé. Gora sax amagul combat de. gis nga diwaan mi mën na gis nga tànk bi xoolal pompe bi la yor di ko si pompe. Hmm. moom xam na lu xew. kii sama nijaay la moom moo nekk Espagne moom waroon a jàppale ci kon neeram yi laay nekk suba ngoon. Hmm. moom génne lépp def ci. mais ñeneen ñooy ñëw du ci def. te yooyu tamit ne dafa xaw a kii daal. c'est vrai defe bi lu mu la yàqal daa bari de. bari na bari na. Hmm. man damaa dem ba ne banaa. mais sama yaay comme nit ñi nuñ ñëw ci kër gi ma toog ci saal bi mu xool ma mu ngi toog ni gars yi dama laaj man leen bàyyi naa mais dafa jékki-jékki woq ma ne ma ni mënoo bàyyi parce que man su ma feebaree or que am naa ay rak am naa ay mag mais yow sa jëm bopp yaa ci sonn mhm. yaay indi sa xaalis yaay indi sa lépp indi sa dooleeg sa xalaat lépp def ci kon mënoo bàyyi. ma ma ma reculer waat. Hmm. matul seen kër gi ci laa génn ci àll bi ànd ak amaat. waaw te mu dëkk ñaxiraat mu yóbbu ma moom ñoom Saliou. mooy hmm. defaat progression. Hmm. waaw. ah Modou lan ngay wax si la grand champion Mbaye Tine jóge si defet kon Talfa depuis boobu amul combat lan ngay wax si moom. waaw li may wax ci moom mooy. li nga booy ay jàmbaar lañu. nga boo leen xamee dëgg-dëgg li ñuy daj. walaay lazim da leen ñee quoi parce que booy bi. dafay ñafe quoi seen kër xam naa ko bu baax mais du tàllal loxo ñaan gis nga même bu amul ji sax day dina takk sareet sax. Mhm. dem di liggéey quoi ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy fay. Mhm. jàmbaar la daal. Ah, du kenn loxo. am na solo. dañu laaj ay ndimbal quoi ñoom dañ ko war a jàppale. Mhm. léegi yow la lan la war a def pour ñëwaat. moom li mu war a def. waaw na entraîner contact. na entraîner contact entraîner. Mbaye Tine yaa ngi muñ de dégg nga la grand bi wax. Hmm? na entraîner waat. contact te xam ne cëram mi ngi ci làmb ji mm-hmm. ba pare euh, euh, promoteur yi nga xam ne ñoom ñoo nekk géejawaay mm-hmm. vraiment man dafa am yoo xam ne sax man comprendre mu ko quoi parce que mbëru géejawaay yi ni ñu toll mm-hmm. te ñu ci néew ñooy bëree booy bii dafa war di bëree chaque deux mois trois mois war na am combat bëree Alioune Seye day lu ñuy xaar ci moom dafa war a bëree booyu géejawaay yi bëri nañu mais nañ leen tëggal combat ñu bëree. mais na ngay gis boo yoo xam ne dañuy bëree bala ñoo bëree ci un an deux ans. loolu loolu baaxul ci ah, carrière loolu baaxul ci carrière. déedéet. Aziz na dimbale ga boy yi. Mhm. ñu bëree quoi. Mhm. Marley bon na bëree am na combat mais Mbaye Tine na bëree. Alioune Seye xamul lan la ñuy xaar ci moom. Mhm. Sa Thiès la ñuy xaar ci moom. dëgg mais mais daal kii pour carrière am décoller waat il faut mu contact. lu bëri non il faut que mu entraîné waat. parce que entraînement dafa métti. parce que boo amul ku la jàppale tamit day métti quoi boo fekkee ne dafa am loo xam ne dafa la war munoo concentré wu ci entraînement bi trop trop quoi. Mm-hmm. mais nag il faut nga sacrifice benn affaire bi quoi. Mm-hmm. il faut que mu commencé entraîné waat nëbbutuwaat defaruwaat ba ñëw quoi. parce que affaire bi il faut nga nëbbutu benn côté bi. Mm-hmm. ñu gëj laa gis fekk yaa ngi travaillé quoi. yaa ngi travaillé Tapha Boy Bambou lan ngay wax si sa euh, mbay Tine. waaw euh, Mbaye conseil bi ma koy jox. mooy làmb moral. Ah, original neexal bu te am na original pur jus de fruits Sénégal ka fay kan gi yegsi na fay facture a gaaw ngir ñoŋal seen dundin bés bu ne Eric Favre Nation ubbi na ay buntam fii ci Sénégal ak ay large gamme de produits yu wër àdduna wërngal këpp ñu saytu ko ci laboratoire français yi gën a mag moo xam da nga bëgg a yokk sa masse wala dindi sa graisse mbaa sax nga bëgg yokk sa cawarte yokk sa ngóora ci sa néegu sëy taw leen gaaw consulter suñu site web www.ericfavre-nation.sn e wala nga woote ci suñu numéro commercial bi 78 689 33 fii ci Dakar Olympique Club ci yoonu Corniche Ouest bi